jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax di am mbégte jël kàddu fii nag tey ci ndaje mu am solo mi ñu jaglele ko suñu ndaw ñi di équipe nationale ñoom ñëpp ñu nekk nag ay ambassadeur tey di dem ci ndaje moo xamante ne àdduna bi ñoo ko seq ca Brésil ndaw ñi nag jaar ak ñun foo xamante ne suñu xel war naa dal ci ñoom parce dañoo jëm ci benn rencontre bu ñu njëkk a def ci Afrique ci ndaje jongante ci wàllu football ci ñi seen dégg-dégg neexul wala ñi seen wax ak seen dégg neexul ñu dem fa yàlla def ñu jël ndam gagné coupe d'Afrique bi ñu dellu see président Macky Sall ñëpp xam nag taxawaayam bëgg a yemale ñëpp mu woo leen dalal leen ci palais de la république neexal leen feeteek ñoom ba pare nag ñaax leen ñu gën a góorgóorlu ca loola sax la profité woon lancé un appel à l' nationale senior ne leen ñii jël nañ coupe d' Afrique bi jàpp nañ ni ñii li ñu def yéen di ngeen ko def yàlla dogal loolu am ñu dajeek ñoom nag tey comme ni ma ko waxee ñuy dem ci Brésil di représenté ji Afrique représenté ci Sénégal ñu leen di ñaax ne leen ñu gën a góorgóorlu taxawaay bi ñu amoon ci Afrique nañ am bu ko ëpp ci àdduna bi ba bu ñu fa yeggee mën faa jële ndam loolu nag amuñ ci benn xalaat parce que ki jiite fédération bi muy loolu l'honorable député nekk suñu mag nekk suñu xarit ñëpp xam nañu engagement am ak taxawaayam waaye ñi nga xamante ñoo leen di encadré muy entreneur bi muy le doyen Tassirou ak ñi mu àndal yépp defe naa ne xele yu ñu encadré yóbbu leen li ñuy xaar ci ñoom ci taxawaay dana am ci xeex waaye dina am ci yar ak teggi moo tax tey ñu daje ak comité olympique ñoom Ibrahima Wade nga xam ne mooy coordonné Jeux olympiques 2026 ànd ceeg Seydina le secrétaire général ak ñi nga xamante ne ñoo nekk kilifa yi fii ci ministère de sports ñuy jël raaya réew mi nag di leen ko jox pour ñu xam ne li réew mi yëpp bëgg dañ koy jaaral ci drapeau bi jox leen ko ñu war ko honorer war ko saytu waaye war a xeex pour Sénégal am ndam ñu leen koy jox ci turu président Macky Sall président de la République jërëjëf.